salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaare def ngeen lu baax xalaat ndaje moo xam ne dangeen ngeen ñëw muy xalaat ji indi ndaje mi ngeen ñëw di siyaare sant nañ leen bu baax lii ni mu amee lii ni mu jógee ci man jëm ci sëñ Sidi jëm ci Abdou Lahad Ka mi fa noonu rek la mbir nag mbir day am tàmbali ñu xam ne ci tàmbali rek lan nekk waaye day yen bu rëy nag boo xam ne moom la nu fi sëriñ bi bàyyee nekkal ko fi nag mooy nekkal ko ci ni mu ko bëggee nekkee ci bu nekkee ci ni mu ko bëggee sun lépp yéen lu ca wàññiku nag di suñu wàññil rek. kon nag gannaaw nekkin wi. lu ci yées ci ni ko sëriñ bi bëggee. suñu wàññil dong lay doon. di suñu wàññinu tey di suñu wàññinu ëllëg. xam kon nag war na noo gën a xam loolu. te gën cee def sunu ite. liggéey bu rëy la. liggéey bu rëy la. kon la ca kon kenn ku kenn ne ci ñun. kon kenn ku ne ba ci mboolem ñi aju ci sëriñ bi mboolem taalibe yi ba ci mboolem taalib yi aju ci sëriñ bi nu gën a xam ni ko sëriñ bi bëggee ni mu ko bëggee sëriñ bi ni mu ko bëggee mu doxee kon nii mu doxee nii mu doxee la ko bëggee noonu mu doxee rek lañ ko bëggee sëriñ bi. moom bi mu ñëwee. moom bi mu ñëwee. boolewu feeg dara borom. boolewu feeg dara ak borom. fiñ ko gisee ba fiñ ko noppee gis. gannaaw nag nun noo am tawféex yi sunu nag moom. gannaaw sunu borom boole nag moom. ورنو راك دار تي لمنو في باين كون لمنو في بايل اك طالب رك لا واخنا ني امون بوك واخنا ني سيرن بي امون بوك واخنا ني موم امون بوك taalibe rek la am kon kon war na noo góorgóorlu bu baax fas yéenaa dooni taalibe rek la dëkk bi dëkk bi dafa mel ni moo jiitu ci lim nu bàyyeel dafa mel ni moo jiitu ci lim nu bàyyeel lim nu bayal yaatu na lool waaye dëkk bi moo ci jiitu waaye dëkk bi moo ci jiitu lim nu bayal bari na yaatu na lool waaye dëkk bi moo ci jiitu kon nun ci dëkk bi kon nag nun ñi dëkk ci dëkk bi nu am tawféex dëkk fi nu am tawféex yi dëkk fi ci wetu sëriñ bi ci wetu sëriñ bi nekkal ko fi nekkal war na noo gën a xam suñu bopp bu baax te xam ne sëriñ bi te xam ne sëriñ bi noonu ma ko waxee woon boolewul ak dara ak borom loolu tax moo tax bi muy ñëw fii ci dëkk bi àndul kenn moo boroom rekk ànd. nekk ci àll bi ba kenn xamul fu mu nekk. nekk ci àll bi ba kenn xamul fu mu nekk. sunu borom won ko fi mu ko bëggee. ba sunu borom won ko fi mu ko bëggee. gannaaw la door a gannaaw ba la door a feeñ. kon nag sunu kon nag sunu warteef. lu mën a gën a xam ci sëriñ bi ñu xam koo xam. lu mën a gën a xam ci sëriñ bi ñu koo xam. jéem koo nekkal ci ni ko bëggee. jéem koo nekkal ci ni ko bëggee. kenn ku nun kenn ku ne ci nun ab dongo dong dongo ab la war a def boppam. kenn ku ne ci nun ab dongo dong la war a def boppam. muy man muy man muy keneen nag ab dongo dong la war a def boppam. dëkk rawatina nag ci dëkk bi. kon gannaaw nga xam ne. kon mbooloo moom. mbooloo moom. bu dajee. fekk ñu amub liggéey. fekk ñu amub liggéey. liggéey boobu liggéey boobee def caa war des caa war a def itte bu baax. liggéey bu saahir bi nag. liggéey bu saahir bi nag. moom itam. ligéeb zahir bi nak dafa wara am taxaway bu baax. taxaway bu mat ligéeb ligéeb kon ligéeb bobu kon liggéey bobu mënut a ñàkk ñu ko jiite. mënut a ñàkk ñu kon yalla dogal na ci jamono ji ñu tollu kon yàlla dogal na ci jamono jii nu toll. yéen lañ ko dénk. ngeen xam nag li ngeen nekk. ngeen xam nag li ngeen nekk. liñ leen dénk liñ leen dénk nag ngeen xam ko. dañuy jëkk xam moo di xam ne dëkk bi. lañuy ñuy jëkk xam nag moo di dëkk bi. dëgg la dëkk bi ci biir senegal la nekk. am na loo xam ne ñun ñëpp ñu nekk ci biir Sénégal noo ko bokk. waaye am loo xam ne. waaye da ci am loo xam ne. ñun sunu liggéey bopp la. loo xam ne nag sunu liggéey bopp la. Ah, xam ki ñuy liggéeyal. liggéey boobu du dara lu dul nag xam ki ñuy liggéeyal. xam nan koy xam nan lañ koy liggéeyale lu mën a xew lu mën a xew lim nu woon rek lan mën a gis lim nu woon rek lan mën a gis moom sëriñ bi moo xam li jëm la moo xam loolu adduna la moo xam ëllëg la moo xam ëllëg la kon moom sëriñ bi ak bëggam kenn rek kon sëriñ bi moom ak bëggam genn képp la muy boroom rek ak yonent bi ñu ko digal kon ginnaaw yéen la yàlla dogal ci jamono ji nu toll kon gannaaw yéen yéen la yàlla dogal ci jamono ji nu toll yéen lañ dénk liggéey bi ngeen gën a xam bu baax liñ leen dénk mooy lan ak nan lañ koy yore ak nan lañ koy sàmmee weesuwul kenn ku ne ci nun kenn ku ne ci nun mu xam ne ab dong dong la rek la war ndigal rek la war a wéyee wéyee gi ndigal googu doon ndigal day doon ndigalal sëriñ bi rek. te sëriñ bi digalu digalu lu dul lu dul. sëriñ bi digalu nu lu dul. suñu yitte na yàlla. suñu yàlla. sëriñ bi digalu nu lu dul suñu yitte na yàlla. ci biir loolu. gannaaw booloo booloo gi mënut a ñàkk. gannaaw booloo gi mënut a ñàkk. te am na loo xam ne mu ne su koo ñàkk sàmm. ak am na loo xam ne mu ne su koo ñàkk sàmm. faw mu am ñu ko sàmmuloo. faw ñu am ñuñ ko sàmmuloo. ñoo ñoo gën a war a xam seen bopp bu baax. ñoo gën a war a xam seen bopp xamne ne boolewul ak sëriñ bi boolewul ak dara borom kon waru ko bolé dara kon waruñu ko boole dara dëgg la lu nu dëkk dëkk dëkk ak Sénégal deug la lu nu dëkk dëkk ak Sénégal amna lo xamne amna lo xamne sunu liggéey bopp la sunu liggéeyu bopp la am na loo xam ne bu waree Sénégal itam. am na loo xam ne bu waree Sénégal itam. bokk ci warti bi. danay bokk danay bokk ca warti bi. waaye nag doxin wi. waaye nag doxin wi. dana wuute dana wuute. fii ku fi nekk. fii ku fi nekk. ab dong rek nga war a def. ab dong dong nga war a def sa bopp. muy man muy keneen. muy lu fi nit di lu fi war a bàyyi nit. kon lu fi war a bàyyi nit. muy sàkku ngërëmal yàlla rek. muy yàlla rek. lu war a bàyyi lu fi war a bàyyi nit rek. sàkku ngërëmal yàlla moom moom la war a doon. kon sàkku yàlla loolee moom la war a doon. ndax sëriñ bi boolewul dara ak borom. kon liggéeyam bii. kon liggéey bii. kom mu ko dénk ku ko dénk. war ngaa xam li mu bëgg. war ngaa xam li mu bu nu góorgóorloo nag. bu nu nag. ba bañ a def sunu bopp lenn. bu ba bañ def suñu bopp lenn. lu dul ay dongo. lu dul ay dongo. yu liggéey yu war a liggéey. juum nan bu metti lu nu def suñu bopp lu dul ay dong yu war a liggéey juum nanu bu metti liggéey bi nag liñ ci mën a gis. liggéey bi nag liñ ci mën a gis. mooy nii mu demee rek mooy nii mu demee Sénégal adduna bi am na nu ñuy doxe loolu dox na nag ba agsi ci nun. mënuñu caa ñàkk a ànd waaye nag nun am na sunu doxinu bopp. waaye nag nun am na sunu doxinu bopp. tàmbali ngeen cee xam dara. tàmbali ngeen cee xam dara. ci weesu. ndax yëngu-yëngu yi nu weesu. ni biir Sénégal doxee. ni biir Sénégal doxee. wuute naag doxen wii lool. taxul taxu leen a ak te taxu leen a tàggoo mm-hmm. ñoo waa Sénégal mm-hmm. loolu nag da ko war a xam bu baax loolu nag da ngeen ko war a xam bu baax dëgg la tawfeex la ci borom dogal nga la ci sunu borom dogal nga dëkk ci biir dëkk bi

am na ñu ca jiitu. waaye am na ñu ca jiitu. ñoom ñëpp nag. ñoom ñëpp nag. dañuy góorgóorlu. dañuy góorgóorlu. xam li nu fi bàyyi. xam li nu fi indi. xam li nu fi indi. xam li nu fi bàyyi. sëñ bi bi muy ñëw fii moom dong nga bi muy ñëw fii moom dong nga àndoon. yàlla rek la doon digal ndigalal yàlla képp la doon wut. dëgg la bi ko suñu borom wane lim doon wut. dëgg la bi ko suñu borom wone lim doon wut. am na ñu ko fi dal di fekk. am na ñu ko fi dal di fekk. di dolli ko. di dolli ko. di doon booloo. di doon booloo. ba doon booloo. ñooñu seeni seeni sët fi nekk. ñooñee seeni sët ñoo fi nekk. ñaandoon ak moom ñaandoon ak moom. dara andiwu leen woon ci moom. dara andiwu leen woon ci moom. lu defaru rek. lu defaru rek. ba mën a nekk nitug yàlla. ba mën a nekk nitug yàlla. loolu rek leen andi loolu rek moo leen andi woon ci moom. fekk na sëriñ bi moom loolu rek ci fekk sëriñ bi moom ci loolu dong la ne. ba loolu amee. ba loolu amee. loola di di dolliku. loola di dolliku. ba agsi fii. ba agsi fii. kon loola nga xam ne moo ñi fi ñi fi ñëw ñi ko fekk si woon la leen fi indi woon. kon ñi ko fi fekk si woon li leen fi indi woon. fekk fi sëriñ bi fekk fi sëriñ bi. fekk ko ci léegi ci li mu nekk. fekk ko ci li mu nekk. loolu noonu nun loolu lañ war a xool. nun loolu lañ war a xool. di ko fàttaliku di ko fàttaliku. xam ne amuñu benn wartiif. xam ne amuñu benn wartiif. lu nekk ca loolu ña nekk ca loole ñooñee lañ nekkoon rek noon ñii ci lañ war a nekk. ku fi nekk. ku fi nekk. nag am nañu fi nekk ñëpp ñëpp ngi fi. yàlla dogal nag am nañu fi nekk ñëpp a ngi fi dëkk bi ñëpp a ngi fi. Hmm. waaye kenn ku nag. waaye kenn ku ne nag. nekkin woowu ma wax. nekkin woowu ma wax. war na la ñi fi nekk wuute nañu lool waaye nekkin woowu ma wax la ñëpp war a nekk. loolu mooy nan fi nekk nii ni ko ni ko sëriñ bi bëggee rek. loolu mooy nekkee fi ni ko sëriñ bi bëggee woon rek. ku fi nekkee noonu. ku fi nekkee noonu. tawfeex ji nga am day day dolli ko rek. tawfeex ji nga am day dolli ko rek. lii ñu leen dénk nag. lii ñu leen dénk nag. yéen la ngeen war a jëkk xam. li ngeen war a jëkk a xam. waaye ñun nag dañ ko war a xam. waaye nag ñun ñëpp a ko war a xam. bi daara la Touba xam ne Touba nag daara la. daara buñ ko waxee. daara buñ ko waxee. xam nan lan xam nan lan mooy daara. kon nag nanu xam ne. kon nag nanu xam ne. ci daara la nu nekk. nanu xam ne ci daara la nu nekk. Touba daara la. bu doonee daara ba noppi itam. bu doonee daara ba noppi nag. faw amul nit amul amul nit amul nit. ah am nit am mbooloo. mbooloo moomu nag. mbooloo moomu nag. il faut ñu ñu jóg seen bopp ñu jóg seen bopp. ñu jóg ci seen bopp. sàmm seen bopp. sàmm seen bopp. war a yëngatu. war yëngatu. war a seet na ñuy defal na ñuy jagale seen mbir. na war a yëngutu war a seet nan la ñuy jagale seen mbir. lu ñu wuute wuute ak ñi ñi bokkal réew mi. lu ñu wuute wuute ak ñiñ bokkal réew mi. du tee nag. du tee nag. ñu jugal seen bopp. ñu jugal seen bopp. seet nañu yéwénale seen mbir. seet nañuy yéwénale seen mbir. bu ci amee loo xam ne ñoo réew mi ko bokk itam. bu fekkee am na loo xam ne ñoo réew mi ko bokk itam. am na loo xam ne ñoom seen xaas am na loo xam ne seen xaas la seen mbirum bopp la. loolu mooy gis ngeen ni mu doxee rek. loolu gis ngeen ni mu doxee rek. baag si baag fi sëñ bi bàyyi woon. li fi sëñ bàyyi woon. ñi fi bi ñi fi bàyyi woon. naka jekk naka jekk. am na nu ñuy doxe am na nu ñuy doxe faw itam ñu wuuteeg. faw nag ñu wuuteeg. doxi réew mi doxinu mi. loolu am ngeen lu ngeen ci xam kon ginnaaw mbooloo mi mënuñoo ñàkk ànd ci mbir gannaaw mbooloo mi nu mënuñoo ñàkk ànd ci mbir seet na muy na muy seet na muy yéwéne ñu defe ko noonu ñu defee ko noonu kon noonu rek la. li ci am solo rek. li ci am solo rek. ñu xam. ñu xam. li leen fi bay li leen fi bay xam li nu fi indi xam li nu fi indi xam lu leen fi bay te du dara lu dul nekk sëñ bi ni mu ko bëggee. lu dul nekkal sëñ bi nim ko bëggee rek. sëñ bi dafa won gannaaw adduna. sëñ bi daa won gannaaw adduna. jublu boromam. jublu kon wuyo koy wuyoo. kon ku koy wuyoo. faaw nga woon nga woon gannaaw àdduna. kuy wuyoo sëriñ bi faaw nga woon gannaaw àdduna. sa lépp. sa lépp. da koy def ci wut sëriñ bi. da koy def ci wut sëriñ bi. sa lépp da koy def rek ci wut sëriñ bi. ginaaw sëriñ bi dafa waroon gannaaw aduna gannaaw sëriñ bi dafa waroon gannaaw aduna ñi ko ñi ko topp ñëpp. ñi ko topp loolu wan gannaaw am sa cër bi la yàlla sédd ci aduna wan gannaaw aduna teewu la am cër bi la yàlla ci nga am sa cër bi la yàlla sédd ci aduna na kon li nga xam ne yàlla dogal na ko nu wuuteeg ñi nu bokkal réew mi. li nga xam ne yàlla dogal na ko ñu wuuteeg ñi nu bokkal réew mi. loolu dañ ko war a jëfee bu baax. loolu dañ ko war a jëfee bu baax. ku fi nekk. ku fi nekk. xam ne loolu nga fi war a nekkee. xam ne loolu nga fi war a nekkee. nekkin woowu. nekkin woowu. dafa am barke. dafa am barke. nekkin woowu sëriñ bi bëgg ku fi nekkee nekkin woo daa barke. Hmm. kon kenn waru fee nekk wenn nekkin wu kenn waru fee nekk wudut nekkin woowu rek. doxinu adduna. doxinu ko ànd. waaye bokkuñu lu ñu lu ñu bëgg. bokkuñu it lu ñuy wut kon ku nekk ci dëkk bi kon ku nekk ci dëkk bi war ngaa seet sa bopp war seet sa bopp seet sa jëmmi bopp sew nekkin nekkin ak loo mën a nekk ak loo di ci yëngutu nga def ca nga jiital ca nekk ci li neex sëriñ bi. nekk ci li neex sëriñ bi. loo mën di yëngatu rek. loo mën di yëngatu rek. na nga cee jiital loolu. dëkk bi nag. dëkk bi nag. li nga xam ne mënees na cee teg bët. nga xam ne mënees na cee teg bët. barkeb sëñ Tuubaa bi fi ko yàlla defal. mooy barkeb sëñ Tuubaa bi ko yàlla defal. tem nekk fi. loolu lépp nag. loolu lépp nag. dafa am lu ko loolu kàttan loolu ju ko ju loolu lépp nag dafa am doole ju ko yor mel ni nguur nguur doole rek ko yor nguur doole rek ko yor nguur doole rek ko yor lii nu fi sëriñ bi bàyyil nag. lii nu fi sëriñ nag. mooy barke. mooy barke. dafa nguur nag. waaye nag dafa xaw a niroog nguur. waaye ak a ñëw wuute wuute nañ lool. nguur ci doole lay jógee. nguur ci doole lay jógee. barke ci ngërëmal yàlla lay jógee. barke ci ngërëmal yàlla lay jógee. barke nag moo fi nekk. nag moo fi ku fi nekk ku fi nekk. nekk nekkal fi sëriñ bi. nekkal fi sëriñ bi. barke boobee da nga ci jël sa wàll. barke boobee da nga ci jil sa wàll. barke nag bokkul ak wërsëg. barke nag bokkut ak wërsëg. wërsëg moom ñëpp ko am kenn ku ne la wërsëg moom ñëpp kenn ku ne ak la la yàlla wërsëgal. mbolo mépp ko bok kenn ku ne am nga sa wursugul yalla yàlla. ku ne ku ne am nga sa wursugul yalla yàlla defal. waaye fii moom. waaye fii moom. wéy ci ndigal te yàlla tax te yàlla tax. wéy ci ndigal te yàlla tax. moom rek lañ fi mëna nek mom moom lañ fi wara nek nekk. ci ndigal te yàlla tax moom rek lañ fi war a kon waroon na xam ne lu nu waree. ak ñi nu bokkal réew mi kon xam nañ ne am na lu nu ware ak li ñi nu bokkal réew mi ni ñuy doxee du bokk ak ni ñu war a doxee ni ñuy doxee doxee du ñu bokk ak ni ñu nun ni ñuy ni ñu war a doxee nun nun amul wenn doxin nun amul wenn doxin wudu sëriñ bi rek wudu sëriñ bi rek kon lim nu fi bàyyil comme lim nu fi bàyyil muy barke bu nu bokk nun ñëpp muy barke bu nu bokk nun ñëpp sunu ak sunuy jëmm nag. ak sunuy jëmm nag. sunuy jëmm sunuy jëmm. nu bokk barke boobu. nu bokk barke boobu. loolu. loolu. ci ngërëmal ngërëmal yàlla rek lay jógee. loolu ci ngërëmal yàlla rek lay jógee. barke barke boo xam ne. barke sëriñ bi nga xam ne yàlla muy barke sëriñ bi nga xam ne yàlla ko jox. kon ku fi nekk. kon ku fi nekk. war ngaa xam loolu. war ngaa xam loolu. ku ko xam itam. ku ko xam itam. te xam ne barke boobu. te xam ne barke boobu. day wéy di wéy. day wéy di wéy. di gën a yaatu di gën a yaatu. kon ku fi nekk. kon ku fi ne. war ngaa doyloo sëriñ bi war ngaa doyloo sëriñ bi. sant yàlla ci tawfeex ji nga am. war ngaa sant yàlla ci tawfeex ji nga am. ci taw tawfeex ji nga am ba boole bi mu la boole ci sëriñ bi. saw gisin saw gisin. warta doon dara. warta doon dara. lu dul xam sa lu dul xam sa fii ku fi nekk daal. fii daal ku fi nekk daal. nitu yàlla rek nga war doon nitu yàlla dong nga war a doon. waaw fii ku fi nekk nitu yàlla rek nga war a doon. ndax loolu rek la ndax loolu moo fi indi woon bi moo fi indi woon ñi ànd ak moom. loolu nag buñ ko jombale suñu bopp. buñ awul woowa yoon rek. buñ awul woowa yoon rek. tegg nañu yoon wa tegg nañu yoon wa yàlla musal. ku teggi yoon wa nag ku teggi yoon kon yàlla nu yàlla yàlla musal amiin amiin. li ci am solo daal ñu xam ne. li ci am solo daal mooy ñu xam ne. taalibe sëriñ bi lanu. ñu xam ne ñun taalibe sëriñ bi lanu. kon war nañoo dox doxin wu bokkul ak li ñu war a doxee. kon waruñoo dox doxin wu bokkut ak bi nga xam ne même lan war a doxee. ni ma ko jëkkee na wax rek. ni ma ko jëkkee na waxee rek. ku ci nun kenn ku ne ci nun ab dong rek la war ab dong la war a doon baat boobu ñu bàyyi ko xel mi ngi koy baamuwaat rek. du tee nag nu du tee nag nu nu dox nu dox àdduna. du tax du waaye bu nun waa bu nun bu ñu xamee ne Touba gii daara la. ay dong rek lañ war a doon. tey dong dong lañ war a doon. buñ ko xamee te def ci suñu itte yëpp buñ xamee te def ci suñu itte yëpp. dëkk bi dana mel ni sëñ bëgg. kon dëkk bi dana mel ni sëñ bi bëgg. danañu mel it na nit yàlla ya. kon danañu mel melit na nit yàlla ya. ku fi nekk itam. ku fi nekk itam. te loolu gisoo ko. te loolu gisoo ko. melawoo melawoo ko. melawoo melawoo ko. doxin woowu doxee woo doxin woowu doxee woo ko. di dox doxin waa nañu nañu sàkk nañu wute àdduna. di doxee doxin wa ñuy wute àdduna rek. nga nekkee ko nga nekkee ko fi. yàgg yàgg tuuranke rek la leen. yàgg yàgg ak tuuranke rek la leen di. ci xam loolu bu baax a baax. nan ko xam loolu bu baax a baax. xam nañ dara la nek nan doni dongo dongo moy melow talibi rek dañoo xaw a wuute <laughs> taalibi moom mm-hmm. talibi mom moy ki sàkkoo nek ci lu neex yàlla mooy kii sàkkoo nekk ci lu neex yalla talibi moy ki sàkkoo nek ci lu neex lu neex yàlla di sàkku ngërëmam koku moy talibi lay liggéeyam. lay liggéeyam moom taalibi bi. mooy def ndigal mooy def ndigal bàyyi tere. def lu baax li yàlla bëgg. def lu baax li yàlla bëgg. daw li yàlla bañ. daw bañ bañ. li yàlla bañ. lépp nga di ko def te yàlla tax. nga di ko def te yàlla tax. loolu mooy melaw taalibe. loolu mooy melaw taalibe. kon nan góor bu baax a baax. kon nan góorgóorlu bu baax a baax. taalibe yombut. ndax nag ak taalibe yombut. taalibe yombut. taalibe yombul yombul ak taalibe yombut. Eh, te it ci la njëriñ li nekk. waaye nag ci la njëriñ li nekk. njëriñal adduna ak alaxira kon nan góorgóorlu bu baax. kon nan góorgóorlu bu baax. dooni taalibe dooni taalibe. bu ñu ko defee rek bu ñu ko defee rek. suñ lépp yomb. suñ lépp yomb. doxinu adduna ak adduna li muy jafe-jafe li muy bari bari ay pàcc. doxinu àdduna li muy jafe-jafe ak lim bari bari ay pakk lim bari bari ay gàllankoor buñ góorgóorlu ci loolu eh, yoon wi yoon wi leer nañ. yoon wi leer nañ. doo gis kenn benn gàllankoor. doo gis benn gàllankoor. Eh, sunu mbir it day yéwén. sunu mbir it day gën a gën a yéwén. suñu doxin it di gën a yomb. suñu doxin it di gën a yomb. suñu barke it muy barke sëriñ bi. suñu barke it muy barkeb bi. kenn ku ne da ca am wàll. ku ci nekk ci loolu. ku ci nekk ci loolu. barke boobu day gën a jëm kanam rek. barke boobu day gën a jëm kanam rek. ci sa bopp ngay gën di defaru. yow ci sa bopp ngay gën di defaru. barke boobu di gën di yokk barke boobu di gën di yokku. njëriñal taalibe loolu mooy njëriñal taalibe gisaay si rek la waaye loolu lépp waaye loolu lépp ëllëg la ñu jëm ëllëg la ñu jëm li nu sëriñ bi bàyyil li sëriñ bi bàyyil bu nekkee noonu. bu nekkee noonu. di leen sant. di gërëm di leen ne ci lam nekkoon. ba lii fekk ko ci. ba loolu dara la. loolu dara la. noo ngi leen ci sant bu baax. leen leen gërëm ci itti jooju waaye nag ngeen xam ne nag lay suñu warteef lay suñu warteef mooy doon nit yàlla mooy doon nit yàlla buñ doonee taalibe ya ya ya doxee ak taalibe buñ doonee taalibe ya doxee ak taalibe dana nekk nit yàlla loolu rek nag la sëñ bi bëgg ci ñun kon nangeen ngeen góorgóorlu bu baax a baax. liggéey bi woyoful. nee na nag liggéey bi woyoful. waaye man ngeen mënees cee defaru. waaye mënees na cee defaru. mënees na cee yàqule. waaye mënees na cee yàqule it. ñu ci kon ngeen góorgóorlu lu baax. kon ngeen góorgóorlu bu baax. fii ngeen toll. fii ngeen toll. ba fii ngeen toll. ba fii ngeen toll. ngeen gis seen bopp ne ak yokkute am na ci yéen. ngeen gis ne am ngeen ak yokkute ak yokkute am na ci yéen. la nag. loolu nag la leen koy may. ngeen góorgóorlu. ngeen ba def itte ci liggéey ba def itte ci liggéey bi. di ko rafetal seen di rafetal seen kem kattan. ndax loolu. ndax loolu. la ciy jóge ci njëriñ. la cay jógee ci njëriñ. mbooloo mépp ko bokk mbooloo ko bokk.

fas yéene nekkee fi nin fi war a nekkee. di taalibe di taalibe. di wéy ci ndigal di wéy ci ndigal. loolu li rek moo ci li ci am solo. nii ma ko waxee sunu waxtaanu biir ma ko waxtaanee nag sunu waxtaanu biir la. yóbbu ko nee na nag jamono nag moo demee ne moom lu waay wax ci néeg bi nag des na ko yóbbu ci biti moom <laughs> mu si dara jamono jee demee noonu. Eh, Bakary lépp de am na solo am na solo de li am rek li am rek moom li am rek les fi wax li am rek les fi wax ku ci bokk xam nga sa bopp ku ci bokkul mu xam ne loolu loolu rek la nekk mu xam ne nun ci loolu rek la nu <laughs> waaw. doole ji sëriñ doole bi am nag. doole ji sëriñ bi am nag. ko tuddee doole barke rek la. deesu ko tuddee doole barke rek la ndax ci ngërëmal yàlla la jógee. kon nag. dafa niroog nguur dafa niroog nguur waaye bokku waaye nee na bokkuñu dara. nguur gi am na nu ñuy doxee. nguur am na nu muy doxee. sañ nañ ko. sañ nañ ko. nag muy doxee. dafa am nu muy doxee. noo xam ne. noo xam ne sañu nu leneen. nañ ko xam loolu nag nañ ko xam. nañ ko xam ci nun nañ ko xam ci nun nin seq bokkal réew mi. bokkal réew mi. nañ ko loolu nañ ko xam ci nun loolu nañ ko xam ci nun noo xamee noonu la lay doxee. xam ne nun hmm, xam ne nun moom nun tëllunoo yàq. yàq. lu yàlla. tëllunu lu dul yàlla. ci loolu rek la nekk. ci loolu rek la ne. waaye nag nag alhamdulilah rabbil alamin jigadiwunu loolu jigadiwunu de ànd ak Serigne Touba ci ni mu ko bëggee ànd ak Serigne Touba ci ni ko bëggee hmm? jigadiwunu de jigadiwunu de kon nag ñi jëkkoon ànd ak Serigne Touba kon nag ñi jëkkoon ànd ak Serigne buñ jombale lañ am buñ ko jombale suñu bopp lañ am buñ ko jombale suñu bopp ñi àndoon ak Serigne bi lañ am buñ ko jombale suñu bopp joomal waaye nag nanu seen jaar ci tànk waaye nag nañ jaar ci seen i tànk nag topp leen ci biir ak ci biti noonu rek rek la demee ñu ngi leen sant nag ngi leen di sant nag bu baax ni ma ko waxee woon rek la ngeen nekkoon la ngeen nekkoon ba agsi fii ba agsi fii loola cant rek ci war waaye na xam ne nag na ngeen xam ne nag loolu lépp loolu lépp waajtaay la rek waajtaay la rek nag. bu ngeen bu ngeen doon wàcc. bu ngeen doon wàcc. waaye kon agsi ngeen ci. agsi ngeen ci. li ngeen li leen di liggéeyloo si ngeen ci. la ko jiitu lépp nag waajtaay rek. loolu lépp nag. dogalu yàlla ci yéen yàllaa ko ci yéen. dogalu yàlla yàllaa ko dogal yàlla ci yéen yàllaa ko dogal ci yéen. waaye da ngeen xam ne li ngeen weesu moom. am njàng ak waajtaay la woon rek. kon nag liggéey bi agsi na. na ngeen góorgóorlu bu baax a baax. nañ góorgóorlu bu baax kenn ku ne nga sàkk ngërëmul sëñ bi rek mi ngërëmal yàlla jërë ngeen jëf